mais bu fekkente ni ndox maa ngi ñëw te bu tawee benn bis nit ñi am jafe-jafe ci déjà déplacé wu ñi nekk Europe dañuy wax naan lu tax Sénégal bu tawee ñu ne dañoo am problème duñu ñu liggéey du question tappale wala bañ a liggéey tawu Europe ak tawu senegal bokkul yéen ñi nekk ci terrain bi toujours da ngeen di war a gis loolu Europe buy taw mbedd yi dañ ko pavé li ci des talila ndox mi ndoxum kese lay doon même soo tooyee sa yëre du tilim canalisation yi tamit demee na noo xam ne au bou de une presque bu la neexee dootoo gis pepp ndox ci mbedd mi fii dakaar par exemple c'est l'une des plus les villes les plus polluées du monde Dakar salte na tilim na poussière na donc bu tawee ndox yooyu dafay jaxasoo ak ñi nga xam ne dañuy daal di ubbi seeni foosi kër ndox moo ma wal ku mu laal say yére boo doon liggéey di nga dëpp koo xamante ni itam bu koñ bi feesee yow ci sa bopp pour nga dox ak tànk problème la waxuma la ak tali bi tey par exemple am na ku jóge ci sama kër bëgg liggéey liggéeyi def ñaari waxtu Cambérène deux heures de temps yoo xam ne bougéwul man maa ko mujj ne dëppal parce que euh, doo yendu di bëgg a dem di liggéey doo àgg fa nga jëm mais réalité yi bokkul Sénégal problème bi problème mu salte la d'abord ak problème mu canalisation ak assainissement loolu il faut nit ñi xam ko te li xew Kër Massar nga xam ni euh, nit day dugg ci benn quartier man dama gis journaliste yi dugg ci ay quartier di def ay reportage ndox mi agsi leen ci ndigg gis nga réew mi toujours euh, dëgg dafay baax a wax lool man dama gëm rek ne maa ngi koy wax même bu fekkente ni yàlla mi dara tëwul moo dogal Macky Sall nekk président réew mi équipe bi mu tànn ci ay loxoom la nekk moom moo tànn ay ministre am moo tànn ay ay directeur am moo tànn ñenn ñi ndax loolu pouvoir bi ko yàlla dénk moo koy may possibilité mu tànn ñooñu mais ministre de la république bu taxaw ci télé officielle wax ci problème mbënd mi wax ne c'est gérable ndox mi agsi ci ndiggu nit ñi kenn waxu ko ne ko ndox mi daa war a dem dans dix minutes wala dans une mais boobaat léegi pepp ndox dafa jógewul nit ñi taxawu ni ñu taxawee woon daaw ni ñu taxawee woon daaw jéeg di yelwaan président bi ci tuddaale soxnaam di ko ñaan ndimbal ngir ñu mën leen a taxawu ndox mi jóg fa c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas Macky Sall doit sanctionner ses ministres il doit obligatoirement léeg-léeg ministre def loo xam ne mu wàcce ko parce que ñooñu toujours damay wax ne ñoo gën a doon ay buur Macky Sall ñoo ko gën a nekk ci situation bu confortable parce que mooy encaisser saaga yi mooy encaisser coow yi mooy encaisser li naqari ak li metti lépp mais ñi mu tànn war na leen a jële fi mu leen teg parce que ñooñu liggéeyuñu loolu mënul continuer à tout moment ngay jël ay nit di leen jox ay budget yu koloso te bu liggéey jotee ñu wax nit ñi ne leen lañu waroon a def def nañu ko mais bu problème jotee rek nga xam ne jéemuñu woon dara tey boo xoolee situation Kër Massar ak lenn ci banlieue bi da ngay gis ne c'est un quartier de retraité nit ñi dañuy nekk diggante HLM ak HLM Grand yoof ak faas ak nangam ak nangam nekk di liggéey di góorgóorlu ñenn ñi nekk ci location ñenn ñi nekk ci kër yi famille bu fekkente ne situation boobu ci la ñu nekk souvent dañuy cotiser di wut ay terrain tey boo xoolee ñu bëri ñi dëkk ay Kër Masaar ak yenn dëkk yu quartier yooyu boo leen laajee dañ la man HLM laa dëkkoon wala Fass wala Grand Yoff wala Nangam bu seen doole di jeex. la ñu amoon lépp ñu investir ko ci benn kër dëkk fa ak seen njaboot di ca jéem a suturlu su nawet bi ñëwee suuxal leen ils n'ont pas le choix c'est des gens yoo xam ni mënuñoo génn seen kër jëm fenn parce que nit ki day taxaw langaamu ci fenêtre ne la su ma génnee it mënumaa luwe ji awma fu ma jëm sama doole jeex na lii laa amoon fii laa ko def te vraiment Kër Massar nekkul situation bu catastrophique boo xam ne mais war na tër réew mi yépp pendant des années érigé en commune en département président def na ko c'est une décision politique yóbbu na fa gouverneur wala wala wala wala wala en tout cas daal am na ay structures yoo xam ne defar nañu ko parce que dañ ko érigé en département mais nag suivi bi sur le terrain nga xam ne du doon ay décision politique loolu ñi ko war a def ba population yëg ko ñoo liggéeyul fii yàgg naa ko wax il n'y a yow da ngay joxe ndigal waaye ñi ngi koy jox duñ ko jëfe bu yàggee yow ci sa bopp coow li day mel ni yaa joxewul benn ndigal il fait des déclarations day wax ne bëgg naa def sàngam nangam mais loolu dañuy gis ñu jéem bàyyi ana ONAS ONAS presque li ëpp ci liggéeyam nawet lañ koy soxla normalement waroon nañ di présenter sénégalais yi arsenal boo xam ne ci ay oto yoo xam ne dañuy manque ndox ay machine ay moto yoo xam ne comme défilé militaire u 4 avril bi dañoo waroon di ko won nit ñi au mois de mars avril mais juin ñoo xam ne nawet bi ndox mi lu mu bari bari bari ku patienter une wala une heure trente bu soobee yàlla dootoo gis pepp ndox kon nañu góor góorgóorlu am une bonne volonté politique am aussi yërmande ci nit ñi parce que nit ñi sonn nañu trop te bu ñuy ñaan ndimbal président la ñuy wax bu ñuy sàkku ndimbal soxnaam la ñuy wax kon ñooñu mënuñu fi nekk éternellement keneen ku fi ñëwaatit situation bi war a continuer c'est parce que dafa am négligence boo xam ne li nit ñi di dund xamuloo ko il faut aller vers les dugg ci quartier yi toog waxtaan ak nit ñi déglu leen ba xam ne nit ñi liy dagg seen xol li leen di mettital li leen di sonal ba ñuy am yenn réaction yi coono la boo xam ne dañ koy dund au quotidien wax dëgg yàlla nit ñi sonn nañu kon euh, yàlla mi nga xam ne mooy def gouvernement bii fi nekk di sunu wërsëg nañu góorgóorlu ba xam ne àddina lépp du politique il y a temps pour la politique mais vraiment il y a un temps pour travailler période électorale nekkuñu ko ñu ngi ci nawet ñu ngi deux mille vingt et nit ñi seen coow yëpp ak seen wax yëpp politique la te ñi ci terrain bi ak ñi nga xam ne ñu dëkk ci quartier yi di sonn ñooñu taluñu politique fu ñu fanaan lañu tal lu ñu lekk lañu tal liggéey la ñu tal seen sécurité njaboot lañu tal ñooñu nañ leen taxawu parce que yitte woo nañu ko ay tappale moom àggul ci taxaw ci ndox mi mu àgg sa ndigg ngay wax ne lii moom ay tappale la Kër Masaar laa tudd waaye wóor na ma ne Guet Ndar a ngay buuj Guet Ndar tudd naa ko waaye par géejawaay gii ak parcelle am na ci mbedd yoo xam ne fii ak une semaine ce sera impraticable te BRT bii ñuy liggéey tali bi kawe na kawe goo xam ne bés bu àggee ba ñu inauguré ko bu tawee kër yi dañuy feesi te loolu it lu mat a bàyyi xel la gis naa sax ne il y a des travaux d'assainissement qui sont faits mais na nit ñi di gën a sóoraale réalité yi nga xam ne moo am ci quartier yi buñ dee liggéey yenn liggéey yi Kër masaar daal yitte woon ñu ndimbal ittewoon nañu yërmande ci ci réew mi lañu bokk te ña fa ne ñi ci ëpp ci borom kër yi ay mag lañu retraité nañu amatuñu doole kon euh, man de bu ma doon président ministre bi du fanaan ci postam bu ma doon président automatiquement il va tomber amul sax ma dem te ñëw parce que nag mënuloo il y an yow président de la république nga dem visiter ko ñëw xool situation bi gisal ko sa bopp wax ne première décision bi may jël mooy fii dama koy def département xanaa loolu xët peut-être pour mu am autonomie am pouvoir de décision la nga def ko installer équipe yi nga xam ne ñoom ñoo ko war a jiite dégager un budget de seize milliards seize milliards jox ko un ministre au bout de trois jours yoo xam ne day taw tuuti ak bàyyi rek vraiment nga nekk ci situation bu inconfortable boo xam ne moo la ko yóbbee nga di ko bàyyi ci postam muy wax ay bétekete dem ci télé bi di wax loo xam ne ñi dëkk Kër Masaar ñépp ku ko dégg da nga naan kii ndax daf ñoo yàpp wala beneen réew la wax wala beneen Kër Masaar lay wax bu dul bii ces gens la il faut les sanctionner politiquement amuñu njariñ parce que politiquement ki am njariñ mooy ki nga xam ne dina la apporter ay résultats sur le terrain nit ñi dañuy wax rek dañuy dajale nit ñi di tëgg bi fecc di maye tuuti weccet di la ko wan c'est du voyeurisme c'est de la prostitution politique mais amul njariñ bërki démb am na koo xam ne Fatick dafa taxaw di wax Matar Ba bu ñëwee week na bàyyi tëgg mi ak fecc bi parce que ci ginnaaw hôpital bi la dëkk comment peut-on être un ministre de la République nekk ci ginnaaw hôpital di tànqal ay malaat nañu respecter nit ñi nañu respecter citoyen yi nañu jox cër doomu aadama réew mi mooy réew moo xam ne diw dee na ak diw naan na ndox ñooy bëgg a yem képp te yemul doomu aadama dara ëpp ko valeur dara ëpp ko doole te xam nañu ni peut-être ñu ngi roy ci tubaab yi ci république ñu ngi roy ci tubaab yi ci démocratie di yuuxu mais sénégalais yi xamuñu ne il y sociale un tissu puissant bu nekk dans les républiques occidentales modernes ba di leen dimbali ñuy mën di def yenn yi France tu es salarié liggéeyatoo tu es chômeur liggéeyatoo tu am nga RSA am nga un revenu universel boo xam ne même soo deful dara dara dara dara di nga am loo jàpp pour lekk pour naan pour toog en sécurité sa kër loolu amu fi fii sa nijaay moo lay ñamal dara wala sa copain jox la dara wala sa sëriñ wala wala sa xarit wala sa mbokk mu nekk bitim réew kon état bi dafa am loo xam ne du ko jëflante ak nit ñi directement amuñu tissu sociale boo xam ne état bi moo koy couvrir loolu nag suñ ko amul te di ko muñ war na ànd ak loo xam ni mooy efficacité sur le terrain mooy nag nit ñi boo ñëwee ñu jox la ab liggéey jox la budget nga defee ko noo xam ne dana c'est même pas la peine de dire le président est satisfait xolu ñi dëkk ci quartier ba walla ci gox boobu nga doon liggéeyee bu fekkente ne xolu ñu sedd na rekk ça veut que la nga waroon a def def nga ko dund bi cher na évidemment parce que on se li xew ci mois de mars dafa am ay répercussions économique mooy li ma doon def bilan dama wax ni nit ñi mesure liberticide yi dugal na leen ci ay bor mais aussi li xew ci événement yi ak saccagé yi ñu saccagé yenn yëf yi dafa tax commerçant yi amuñu contrôle ñoom ci seen bopp xam nañ ne prix yu ñuy pratiquer sur le marché jaaduwul saaku suukar vingt-huit mille la doon jar bu yàggul mi ngi ci trente mille Euh, bidon diwlin mi ngi ci vingt et mille vingt deux mille am na prix yoo xam ne boo ko déggee da ngay yëg ni kii moom day def li ko neex kese parce que y a pas te Euh, souvent sax nit ñi dañuy wax douanier yi nangam ak nangam mais gis nga certains commerçants sont dix mille fois plus dangereux que les que les son ils sont plus nocifs même dafa am loo xam ne nag loolu lépp état bi war na ci teg loxo war ci def contrôle parce que nit ki mënuloo dëkk rek ci di wax ne du man du man du man non les décisions son prises à très haut niveau mais kilifa yi nga xam ne ñooy jël décision yi nañuy topp ñi ñu jox ay décision ñu di ko jëfe walla ñu leen di sanctionner ministre bi warul vraiment moom ci boppam bu amul sax vraiment 16 milliards ku la ko jox defuloo benn résultat même soo démissionné wul maanaam bu ñu lay dàq sax waruñu la faa fekk bu ñu lay dàq sax waruñu la faa fekk